河。 salaam bikum fukki sénégalais ak ñeent ak i mauritanien la ñu fekk ñu faatu ca seen gaal ga allah enquête yéen kaay moo ñu ko xamal l'observateur na ko faala ci yokkal fañ leen fekk moo bett ñu bëri réew mu ñuy wax république dominicaine fu sori te bañ leen fekkee seen gaal ga fekk nañu faatu ba seen yaram fa yàqu ay yax lañ fa fekk fekk nañ fa tamit ca gaal ga fukki takk ak benn yoo xam ne cocaïne drogue bu bon bi moo ca nekk gaal ga nag Mauritanie la départ kaay dëggal ko ne fukki nit lañ xam na ci ñoom ay sénégalais xam na ci ay mauritanien turbine yéen ne ñaar fukki at ñeent lañ am jàpp fanweeri at ak ñett kayit yañ gis ca seen poos ya moo firndeel na sénégalais lañ ak ay mauritanien fa ñoo fekk seen yaram fa yàqu ba jéggi dayo ñiy dee nag ci géej gi lépp ngir dem ci réewu tubaab yi fay gën di jéggi dayo presque bët bu set nga dégg gaal gu suux wala ñu ñu jàpp wala ñu fekk ñu dee laas yéen mel ni ku naan ko faay dëggal nga wax ndax démbu démbu biir sénégal gii am na fi gaal gu suuxati benn doomu aadama moo kenn réer ca waaye ñoom nag demu ñoon barsaade ak barsàq déedéet ay taalibe lañ ay xale mbaj ca diwaanu ndar fa ñoo bëggoon a jéggi dex ga ndox ma seen gaal ga këpp sapeur pompier ña wër kenn kañ gisagut ba léegi leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye fa handi ak coppite fa fal ay gouverneur yu bees fal ay préfet yu bees ci biir réewum Sénégal fa toxal ñiy wàccee ñële vox populi na ko loolu mooy chamboulement ci tubaab ndax juróom-ñeenti gouverneur toxal nañ leen ci fukki gouverneur ak ñeent am bokk na ca ñañ toxal Alassane Sall moo nekkoon gouverneur bu Dakar njiit réew mi Diomaye Faye fa koo yóbbu ca diwaanu Ndar 24 heures ko Ousmane Kane ba nekkoon gouverneur Kaolack fi mu toll nii moom la ñu fal moo nekk gouverneur bu Ndakaaru Le Soleil yéen a kaay na administration territoriale bi kay xam na yëngatu de ak coppite yu bëri fa cee xam Vox Populi ne fukki préfet ak juróom fale na fal xam na ñeenti gouverneur yoo xam ne ñoom falaatuñ leen de bokk na ca Aline Badara Samb laas yéen a kaay ne fal gi jeexagut de démb ca conseil des ministres njiitu réew mi fa fal rappeur bi moom mooy PCA bu grand théâtre naka noona rappeur bi wax nit dof yéena ngi fàttaliku moom it fal nañ ko laas yéen a kaay ne lawoon woon ne na gi ñu doon wax rupture bi gaa yi ngi doxal de ndax ñi ñoom fa ñoo sonnoon ci xeex bi ñu fay leen neexale leen ko <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne wote député yi di ñëw fañ koo nar a boolee ak wote mairie yi ak président conseil départemental yi mu nekkandoor benn wote société civile bi ña ca gën a bëri loolu la ñu wax te moo gën ci réew mi fa ñoo a dajale wote yi def ko muy benn wala ñaar présidentielle boole législative yi ak locale yi ndax yàqum xaalis la ki fi nekkoon njiiti réew bu Sénégal Macky Sall waxoon na ko fi nee na man fukki at benn yi organise naa fi fukki élection ak benn te loolu amul benn sens ndax ay élection fa cher ci xaalis bés bi yéen a kaay ne nguur ak jomaay gi ak sax ñoom boolee wote député yi ak maire yi moo leen arrangé ndax lu ko moy lu ëpp juróomi téeméeru maire ak président conseil départemental ñi ngi Sénégal te ñoom ñëpp benn bokk yaakaar lañ bokk su leen bàyyi ñu jiite seen maire ya mën naa bañ a baax ci ñoom kon fañ leen war a tas def ay élection ko defee ñoom ñu mën a fal seeni maire réew mi yéen a ko tas assemblée nationale boobu ngeen di wax ndëgg sërëx la wala boog mooy solution bi saafara ci jomaay fay laaj ci rek de juróom yi nag conseil constitutionnel ñoom léegi tey fan yi di ñëw fa ñuy tontu président Diomaye Faye mi nga xam ne fa leen a laaj ban date mooy date bi gën te yoon maye ko ngir ma mën cee tas assemblée nationale la nar a tas nag boo mooy tuut mooy conseil supérieur de la magistrature a ah yow fa ngay xool assises yañ defoon ba léegi jubooguñ ci ndax président Diomaye fay des di leen jiite ñoom attekat ya jëwriñ ju ñu dénk wàllu yoon fay nekk ci seen biir ak ubbi gi nga xam ne fañ ko bëgg a ubbi seen kuréel am ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ay attekat bokk ca loolu it juboowuñ ca bu ñii ne d'accord nañ ñii ne d'accorduñ bu ñii ne waaw ñii ne déedéet point acte yéene kaay moom fa xëy xamal ne Macky Sall dem na waaye fa yóbbuwaale Barthélemy Dias ak Idrissa Seck maanaam fale na raylu bañ dee wet Idrissa Seck fekk gum fekki Macky Sall moo tax askanu Sénégal wan ko ginnaaw Barthélemy Dias wan ginnaaw gu wan Ousmane Sonko ginnaaw dem fekki Macky Sall loolu moo ray Barthélemy Dias ba tax fi mu nii askanu fañ koo suur këll le mandat yéen a kaay ne opposition radicale bi nga xam ne Ablaye Wade Idrissa Seck Ousmane Sonko fañ koo nekkoon ci jamono mujjee ci ab protocole a bir yene kay ba yene kaay bi di témoin ne gis nga sonk mom ngeen di wax ak Jomaay fa xam ñetti mbir yoo xam ne fa hub seen bopp yi fi mu toll nii Sud Quotidien mel ni ku daan ko may ma ngir yàlla ma wax ko bokk na ci ñàkk karanga geeg accident yi ci yoon yi ndakaaru njaay moom la ca yokk mooy borom jakarta ya nga xam ne fa ñuy agresser di sàcc siif alalu nit ñi digg bëccëg ndara kàmm dëgg la jakarta am na ndaw ñum jox xëy maanaam liggéey lañ ko def waaye fi mu toll fa ñoo jël fitu askan wa ca ndakaaru ndax sàcc ak agression gañ nekkee léeg-léeg timit accident yi borom jakarta yi fañ ciy faatu ñiy faatu ci hôpital yi nag ndax ñàkk paj mu baax ak jumtuwaay yu baax président jomay Fay fa bëgg loola dakk ci réew mi ba tax ca conseil des ministres ba démb fa jël ay matuwaay sàkk ci gouvernement bi ñu taxaw càmbar lañ bët wàllug yaram ci Sénégal hôpital yeeg lépp ñu fexe ñoŋal wàllu wi ni mel le soleil yéene kaay ak 24 heures ñoo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom direct news yéene kaay mooy Ousmane Sonko ba léegi déclaration patrimoine am ji est def na ko sax moom bu fekkee def na ko na ko wan sénégalais déclaration politique mi fi wax barki démb boo njaay jëm ci muuraay yi fa la mu ñu wax moom source ay yéen kaay mooy njiital AGETIP fa xamaloon réunion dagg réunion ba ne faay daw dem primature ndax fañ maa xoone kilimu Ousmane Sonko ba fa paam kon dem na man ma dem ci libération fekk fa douane bu Sénégal fa kepp Woodside ci doxalin bu jaarut yoon yoor yoor yéen kaay moom fa xëy ci këru taskatu xibaar yi nga xam ne fa ñoo nekk ci jafe-jafe xaalis Mamadou Ibra Kane nee na man ñaari at a ngi nii ma xam problème mu fay salaire problème mu bor moo tax ma tëj sama ñaari journal yi Ibrahima Bakhoum ne télé yeeg rajo yi defatuñ ay émission ay production déedéet plateau rek lañ fi nekkee ña des moom musique ak théâtre rek gp yéene kaay moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme benn xale bu jigéen daal fañ ko wan looloor mu xam doom fa jël doom ja daal di koy xoj ba doom ja faatu ñàkk bakkanam allah yaa néeg te soxor jur doom di ko rey xam na ñu ne ngeen jur doom te doom ja deful la dara mu def nag moom benn moodu moodu sénégalais bu nekk Amérique mooy lu yéeme lu ñaaw lu garaaw aw seetal moodu du bi daal fa jël fetal tiire fetal ray rakkam bu jigéen ñu ne déetewaay mu ëlbatiku fetal ray rakkam bu góor ñu ne ti mu jël fetal ga teg ko ca boppam ba tiire ray boppam xaru aay bés bi yéene kaay ne ki def loolu nag moodu moodu boobu njabootam ma nga fekk baax ca diiwaanu Louga waa ma ne xam nga démb faa doon ñaawlu tubaab yi nga xam ne fa ñuy rey moodu moodu yi te du mujj fenn léegi tey moom moodu moodu bi ci boppam moo ray rakkam bu jigéen ak bu góor ba pare ray boppam kii moom faa leen di dara lu war a tax ci àdduna ngay def li ni mel